salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaw ñu leen di nuyu yéen ñëpp di nuyu Sénégal yëpp di leen wax leen bàyyi yéen ci jàmm di wax ne li xew camp pénal day euh, incha allah taala man dama ragal rek lu ko raw mënoon naa xew fële ci rëbës ndax rëbës la fa nekk moo gën a jaadoo di ci maanaam pénitencier yi détenu yi dañoo sonn trop benn néeg cent quatre-vingts personnes muy chambre yi ma leen di wax chambre une deux trois quatre chambre neuf chambre dix chambre quatorze chambre treize chambre douze chambre onze quarante et un yooyu dafa dafa dafa si dafa dafa surchargé ba mu ëpp te ba ma génnee ci kaso bi laa waxoon ne leen président Ousmane Sonko président Bassirou Diomaye fay war nañoo dem ñoom ñu dem visite chambre yi ma leen di wax rëbës la fa nekk jaaduwul dañoo war a dem ñu ubbi xool ñu xoolal leen ñu ubbil seen bët teg seen bët ci ci ci ci ci chambre yi dafa nekk ci ay doomu adama ak ni ñuy mel seen nekkin paquetage bëccëg ak guddi ku ci génn cour da yaakaar ne yaa ngi àjjana paquetage cent quatre-vingts personnes kenn du weddi li may wax président de la république wala président Ousmane Sonko ni ñoo war a dem ubbil leen kaso chambre yi ma leen wax ba ma génnee kaso bi laa ko réclamé woon réclamé woon ñu ubbil leen ñu xoolal seen bopp bu ñu paree ñu dem xool lu leen lu leen seen def ko ubbi kaso bi xool chambre yi ñu xool ko ndax juge yi magistrat yi nga xam ne ñoo nekk fii euh, euh, euh, Pikine ak dakaar mandat dépôt yi ñuy def moo ëpp li ñuy génn ci ay nit par jour ku ñu ci dem parquet saa bu ñu demee parquet trente personnes bu ñu dikkee lañ cay bàyyi du mat dix personnes wala wala wala quinze personnes ña cay des ñëpp dañuy amaat dañuy amaat ravage ñu dugalaale leen ci kaso bi te teewul dañuy dugalaat yeneen arrivage yu ñëw bés bu set liy dugg dana man ñett ci liy génn bés bu set rëbës chaque ba mu des samedi dimanche liy dugg ci ay arrivage day mat triplé ci liy génn par jour loolu nag mënut ànd ak kaso boo xam ne ni du am du indi ay problème président de la république wala président Ousmane Sonko dañoo war a dem ñu ubbil leen kaso yi ubbil leen chambre yi ma la ñu xoolal seen bopp su ko defee ñu jël seen responsabilité xool ñi nga xam ne ay longue détention lañu wala ñi nga xam ne kii lañu ñu àtte leen yóbbu leen ci kii leen maanaam euh, yóbbu leen mit euh, kii convoi ñu désengorger Rebeuss Rebeuss moo gën a garaaw te loolu président de la République Ousmane Sonko su demoon bëccëg ubbi néeg bi ñu xoolal ko mu de ubbi ubbi néeg bi mu dugg xool ne nii la nit melal ci automatiquement ci sens yi lay jël ay responsabilités am juste yi bu ñu waxee ñu ne amuñ effectif bu doy mënuñoo suñu effectif bi doyul mais ñu fa digg ñëpp ñoom ñoo leen fa dugal ku fa am mandat dépôt ab juge moom bind sa mandat dépôt dugal la mandat dépôt ba pare bu ñu waxee ñu ne ñoom amuñ effectif bu ñu mën doy pour ñu génn pour ñu woo woon ñu àtte leen ñoo xam ne dañu fay am lu ma ëpp duñu am enquête duñ dem enquête duñ leen atte duñ def dara am na ñoo xam ne da ngay dañuy tëj dañuy tëj nit benn détenu ñu tëj ko lu mat euh, mandat dépôt maanaam mu nekk instruction ñu tëj ko fa lu mat cinq bis bu taxawee dañ naan ko deux ans lañ la tëj te dañ ko fay def maanaam mandat dépôt cinq ans ñu mu dem tribunal ñu àtte ko tëj ko deux ans bàyyi ko ma ñibbi mu perte trois ans encore te loolu président de la république moom na jël responsabilité am dem ci kaso bi xoolal boppam bu mu yónni kenn wala président premier ministre président Ousmane Sonko bu mu yónni kenn na demal boppam xool la nekk foofu ay nit lañ ay doomu aadama lañ te juge yi lañ fa tëj liggéeyuñu juge yi ñoo jël nit ñi dafa leen mandat dépôt ba pare duñ jël seen dossier àtte leen ku ci dem sa avocat dañuy dem ba sonn ñëpp ñu fa nekk ña nga toog di xaar ñoo xam ne ay huit ans man gis naa fu ñu taxaw ay huit ans dix ans mais nañ leen woo àtte leen da gis koo xam ne dañ ko fay tëj huit ne ko tëj nañ la tëj nañ la euh, euh, deux ans nga perte nga perte